ji tegu ci yàlla ngi tagg Seyduna Ousmane muy aman huwa qaanitun Ousmane yàlla rek moo xam ku ko dàq jaamu yàlla jaamu yàllaam heggoon na ci bët bu set bu jullee jexe naafila lim war a naafila ba pare mu des benn rakka witar gannaaw bi mu julee ñaar rakkaay safa mu des witar mu ne allahu akbar jàng fatiha commencé ci baqara ba ci minal jinnati wan naa si door a rukkoo bu ca bàyyee ko door a sujoot door a dem tëri guddi ga jeex na bët bu set rek benn rakka ñu ko daan naafila kaamilu alquran te ba muy def lii yonentu bi rappel na ko ci list bi war a dem aljana xoo na ko aboubacar aljaana nga jëm yow sayduna omar aljaana nga jëm yow sayduna ousmane yow sayduna aliyu yow talhatu sayduna talhatu yow saadu ak said yow abdourahman ibnu awfu amir bun jaraax lim leen ba ñuy fukk ne aljaana ngeen jëm keroog bañ leen waxee lii ci la ousmane gën a takk ndiggam guddi gu jot mu jàng kaamil ak wi witaree ko waaw kon ñun ñun waxaguñ dara fu ñu war a lu ñu war a def ñun de waxaguñu dara nga dara rek yow na commencé reer rek tëdd am ñoo xam ne buy guddi gi buy maanaam buy jant bi so seen bëree sona nelawa nelawa nelawa nelaw ba passé dix heures rawatina xale yu góor yi jamono ji nelaw rek xeen guddi gi yëpp ngay wër a wër a wër ba trois heures passé quatre heures ngay door di tëdd nelawa nelaw ba midi passé amoo loo ndékkee ngay laaj mère beek paa beeg passion bi san franc may ma jënd mburu xam nga wumu nga naajee xeew biddan ku biddanti rek sa biddan biddanti suba teel la ñuy séddalee wërsëg yi bu la fekkee ngay nelaw yàlla balaa jox ñay nelaw jox ñi xeew yàlla balaa jox ña toog jox ña taxaw su ko defee kon heure boobu Sayyiduna Aïcha mos na ci tëdd yi nelaw sa yonent na ne ko jugal nelaw da nga war a heure boobu di tëdd di tudd yàlla moo tax yonent bi ne ku julli suba di tudd yàlla ba jant bi fenk dañ la bindal yoolab ku aj màkka aj gu mat sëkk ak ku umra ji umra gu mat sëkk ndeke kon nit mën naa toog fi fekk aji na màkka tudd rek julli fajar rek téye sa kurus wala nga téye sa alquran di jàng ba jant bi fenk booy tëdd nga door a tëddaat mu ne dañ la bindal maanaam yoolu ko umra ak ko hajj loolu boo ci saxee sa dund gi yëpp da nga bëri yool waaye yow waxuma la fajar gi moom loolu la jënti woo ko sax nelaw rek doo julli fajar bala ngaa yeewu am na waaju ma ko laaj ne ma damaa biddanti ba midi ma war a julli fajar may laaj dama koy yeeloom dama koy biral ma ne ko danga koy biral ànd ak gàcca jàng ko ca kaw nit ñi xam ne yaa ngi door a julli suba loolu moo ca war Seydina Ousmane nag li la daan def amoon nañ mag mu baax maam rawxaan ngom daana naafila alquran par par guddi mu mos caa jiite benn siise siise mu am benn rakka ba muy jugaar rek mu daw benn rakka lañ am daal ba sëñ bay jugaar rek moom mu daw ne ko beneen rakka bi kay du ma fi fekk guddi ku jot mu naafila kaamilu alquran kon ku ca góorgóorlu tamit yàlla dimbale la ca boo jéemee rek yàlla dimbale la ku jéem rek yàlla dimbale la ca moo tax muy taggu Ousmane ne aman ndax ka nga xam ne huwa moom kaa xaanitun aji jaamu la yàlla ana allayli waxtuy guddi yëpp mbir mu muy aji sujoot wa qaa'iman muy aji taxaw taxaw ak sujoot rek la jeexal guddi ga lu tax mu koy def yaxdaru ma ngay ragal axirata mbugalam xalaaxira wa yarjoo ma ngay yaakaar rahmata rabbihi yërmandey boromam ku mel nii ndax mën naa xem ak ku melul nii déedéet kon nii la doon def lu tax mu koy def nag ñaar rek yaakaar aljana ragal ragal ragal mbugalam àllaaxira ab julit li ma la waxoon dafa boole boole ñaar xaw foog rajaa rek yaakaar ba yaakaar ne buy kenn dem aljana moom lay doon léeg-léeg mu ragal a ragal ragal ba yaakaar ne buy kenn dem safara moom lay doon amoon na wenn waxambaane wu doon génn bi yonent bi ñëw di ko seet si fekk ma nga feebar feebar bu métti ne ko yonent bi ne ko naka sa yaram mu ne ko rek ñaar daal yaakaar lool boole koog ragal lool yaakaar waaye ragal naa bakkaar yu bëri yi ma nekkoon ku bëri bàkkaar laa yonentu bi sallallahu alayhi wa ma ne ko ragal gii nga ragal boole kook yaakaar yàlla da cay dëgg yaakaar gi nga ko yaakaar mu dëggal ko sa ragal gi nga ragaloon mu mu fanq ko ba sa bàkkaar yëpp mu jéggal la ko moo tax ragal ak yaakaar xol buñ dajee rek yàlla effacé ragal ga dese fa yaakaar ga waaye yaakaar nag foo koy dégg lu yaakaarlu bala ngaa yaakaar da nga yaakaarlu xan ba dee naan yërmande yàlla yaatu na foo ko teg booy booy yaakaar da ngay da ngay nekk ci lu yaakaarlu nga xam ne la yàlla santaane yaa ngi cay def la nga man lam tere yaa ngi cay góorgóorlu di ko bàyyi la nga mënut nag ak li nga xam ne da nga caa lu nga yaakaar ca yàlla mattalil la ko waaye nekk sa bakkan lu la neex nga def ko bu waxee nga ne yàlla mën a yërmande nangam ak nangam ñenn ngi sa wax ñu ne xol la yàllay seet rek ku julliwul sa xol mën naa rafet joxe wóoroo sa xol man naa rafet joxe woo asaka sa kol man naa rafet yooyu yëpp kon erreur rek la ñoo koy wax rek waaye yàlla waxut ko kon da ngay boole ñaar yëpp la nga mën ngay def ba ray sa bopp boole koog tamit nag ànd ak ànd ak tamit maanaam boole koog ragal boole koog yaakaar. aj mu ma aj ndax booba màgget ne mu yaakaar ne duutul aj seeti mu ñaan bëkk néegu kaaba ga ne nañ ma ubbil kaaba gi ñu ubbil ko ko mu jël benn tànkam ndeyjoor ba teg ko ca tànkam càmmooy ba di julli ca biir jàng fatiha baqara ba ci ala ca maryama mu door a rukkoo sujjoot jugaat jàngaat Maryama ba ci min a jinati wa naas mu door a rukkoo sujjoot ba mu paree mu ne yow yàlla jaama ngi nii bu bëri bàkkaar te yaakaarut ku dul yow yaakaarutul ñëwaat fii ci sa nee bii di ka ci ci kaaba gi ci la dégg kàddu goo xam ne ko abi abu hanifa mbooleem loo ma sa def ci ku nga jëm ku la sopp sa dem aljana kon xam nga ne kooko góorgóorlu na waaye yaakaar rek Eh, yaakaar gu ëpp nag baaxut yaakaar te yow defoo dara booy yaakaar da ngay am ci loo yaakaarlu waaye nag yaakaar te yow tegoo sa tànk na loolu tamit caaxaan rekk la aaya ji mi ngi tagg saxaabaay yonantu bi seen dundu lépp di xam-xam mënuñoo xem ak ñi xamut xam-xam kon yàlla tagg na xam-xam ñi ko xam ba bay àdduna bi tukki duñu xem ak ñi xamut ñi xamut qul hal yastawi lazina ya'lamuna wa lazina laa ya'lamun su ko defee nag xam bi ci gën xam looy jaamoo sa borom te bi nga ko xamee nga di ko jëfee xam ko te boo jeexaloon téere yi te doo ko pratiquer yaa ngi mbaam musa fi téere xel Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ne inna alladi lam yaxsha rabbal alamina walaysa bi alimin walaw afnal fununa